boo géet ba mu fi jëlee xaalis sànni ko si suuf man maa njëkk nekk mbër mi génn wax ko ne rafetlu wu ma lim xaalis kenn du ko sànni si suuf kon moom dafa defoon négatif ma wax ko kon nit ki bu defee lu bon boo ko waxee bu defee lu baax amoo droit wax ko kon <coughs> pardon su nekkee bitim réew. ah yaakaar naa ne message bi ma ko tàllaloon ne ko boo dee may mbër xaalis waroo kaa sànni si suuf mu koy formé ne ku lay tarbiyu loolu baaxul kon moom bu demee ba jël ay mbër woo leen jox leen ay avance ma dégg mu ne day génne xaalis boo xam ne du jël ay cent di ko jox benn mbër day jël xaalis partagé ko mbëri ndaw yi dama nga xamal na ko lu muy def rafet na. ndax nit bu defee lu bon nga wax ko bu defee lu baax da nga koy wax lii mu def nañ ko si encouragé man mi su ma jox ma sama jox ma avance ndax. combat lag kii combat Lac ama neex la taxawal te man maak ama neex maak lagros Rose ñoo bokk fas ama neex rakku magu maama yàlla pourquoi maak moom combat boobu mënuñ see jël spécial. man li naqari woon ama neex mu jëm kaa faj fii Lac Rose li ko naqari woon fee mu jëm kaa faj mu nekk petit camp 2 ma ñu defaral maama yaa ama neex defar lagros Rose defaral ama neex la ji jeex. kon yow daal su ma dégg nga wax ji daal mooy danga nga bëgg a lancer appel kii di Mo na ko mu taxawal combat bi. dugal ko ci mu nekk spécial. bu dul moom man ku ma xool xam ne làmb yu fi yëg ga taxaw yëpp damaa bëri ci combat yooyu. dama ne la gasoo mu ngi fi ñëpp ngi fi ku taxawal suma combat mu jël ay dama ne la. Euh, ba mu defee naa ko su dul noonu dama ko wax mu dégg kon bu jëlaate ay xaalis séddale ko mbëru Sénégal yi ñuy bëri kon mu ngi def lu baax ndax bu ko neexoon mu jël xaalisam def ko feneen. eggale saani bi sama fu gars yi di forte bu boobaa damay génnaat tamit di ko dalaat di wax ay wax yu gën a garaaw yi ma doon wax waaye tant tamit mu ngi jël xaalis di ko jox mbir ñuy liggéey dañ koy encouragé ndax ñun ay mbër lañ ah.